Assalamualaikum warahmatullah. rahmatullah maa ngi nuyu waa dëkk bi yépp di eh, chef de village ak eh, notable am yépp vraiment ak eh, toute la jeunesse de Bambilor jeunesse féminine que jeunesse masculine donc maa ngi nuyu ñëpp daal si vraiment lii ñu sumb ba tollu ci fi war a gën rek pour am eh, le maximum d'informations di di nuyu aussi la presse parce que cette fois ci joué na ci rôle bu rëy rëy rëy comme ni leen ko waxee woon bu le passé rek dañ ni lépp lu fiy jaar dañ bëgg mu leer si boppu askan wi particulièrement la jeunesse parce que ñoom la ñuy liggéeyal booy liggéeyal nit nag dafay wareef boo demee ba si kanam toog waxtaan xam leen fi ñu toll ñoom ñu xam li nga xamante ni moo leen dese si parcours bi ak lan lañ war ba ñuy si kii bi âge euh, bi donc yàlla def noonu le premier nañ ko jàppoon reporté nañ ko ba le 8 mais quand même loolu yëpp si souci de bien faire la parce que nañ permettre ñenn ñu gën a wu donc fi ñu toll si wàllu njaayam carte bi d' abord comme li leen ko waxee woon rek ñu ngi si 137 cartes on a vendu 137 cartes au euh, moment bi may wax ci 137 cartes la ñu ngi amoon euh, cent cartes donc des na suñu sañoon lépp jar ba ñu dolli mais nag euh, ñiy jënd ñoo xam li ñuy jënde ak tamit information bi àgg na fépp defe naa fi mu nekk te ñu ngi ñaan rek des na ay quelques jours avant ñuy clôturer vente bi donc nag ñuy ñaan jeunesse bi yëpp ñu ñëw fekk ci jënd ci carte yi préparer seen assemblée donc beneen bi ma ci dolli mooy tey jii. dañu joxe woon muy lundi le 2 dañu woon dépôt dépôt de clôture yi candidature yi dépo bi lundi lay jeex muy démb à minuit donc nag démb patienté nañ ba minuit zéro minute donk nag nit kii boo ko jëlee kii jël li nga bëgg ñu koy waaj ay ay mois ba heure bi ba jour bi jot day aaju nag ñu am fu ñu yem buñ fa yemee tamit dañuy wax ni askan wi ñaata déppo lañu am du man maay joxe ñi war a jàll parce que ñun benn commission lañ yore commission bi nañ waxtaan pour dépôt yi ñan ñoo valable mais dépôt yi ba tey buñ ko clôturé démb am min bi trois candidats lañ am trois candidats ñoo déposé enveloppe yaa ngi nii vraiment candidats yi man mii mënuma laa wax kan moo ci valable parce que enveloppe la ñu indi ñu fermé ko bu ñu commission bi ñëwee ñu ubbee doo enveloppe bi xoolandoo ko xool li nekk si biir ba nga xam lan moo si jag ak lan moo si jagul dañuy ñaan na comme que ñett lañu ñett ñëpp yàllee dina dina baax mais tamit buñ si mënee waxtaan ba am si yenn yenn possibilité yi gën a wàññi ba baa ñu waxtaan ba juboo moo ñuy gënal parce que lépp rek revient à la jeunesse de Bambilor donc bu ñu xoolee enveloppe bi enveloppe numéro 1 bu saw la Vous avez déposé lundi 2 janvier 2023 à 8 h 53 minutes 8 h 53 minutes le déposé démb donc nous top aussi Amadou Sen. Amadou Sen euh, déposé le lundi 2 1er mois 2023 à 10 h 16 minutes donc troisième élément bi Faye Mohamed Faye déposé le démo aussi lundi 2

loolu tamit day baax tamit euh, vraiment nit ñi xam ko xam ni lépp lu ñuy def la dañ ko bëgg a jaarale si yoon dama leen ko waxoon dëpp début lépp lu ñu si def day leer parce que bëgguñu après ñu ni nii lii nii nii foyer bi jaare fa waaye bi dañoo bëgg bi baax bu ñu si tegoo si raay yi rek ñu xamante ni foye bi nit ñee ko tànnal seen bopp jeunes yee ko tànnal seen bopp deme si xel ñu accompagne leen pour ñu réussir donc daal loolu amoon comme message boo xamante ni tey jii. naa ko jàllale envers vous vraiment di leen remercier bu baax a baax a baax di delluwaat di remercier ñëpp rek surtout le président Saya bi moo xamante moy président sortant bi vraiment momit it facilité nañu lu béré béré béré béré parce que mënoon na denc yenn information duñ ko xam mais aussi mënoon na ko fermer ba problème bi bëri kenn jeune yu bëri duñ ko xam donc nak lepp fi nek nekk na ci yoonu bu baax appel bi ñuy def rek moy ay kilifa ñooy ñew ay kilifa ñoo ñëw président kii bi nañ leen jox cër bu mat jeunes yi war nañoo montrer ñu sommes matures mûrs vraiment mûrs nañu ba xamante ne du ñu am benn coow lépp nañ ko jaarale dans les règles de l'art ba jour ba lépp jaar yoon ñuy appel ñu def benn appel rek ñu teel a ñëw déglunte ci jàmm ak salaam kii kii jiitu ki ci topp ki ci topp ñu ñu félicité ñu nuyoonte tàggoog jeunes yi xam ni kat rendez-vous bi ñu am cër bi ñu am li ñu yenu dafa diis ñu xamante ñepp ñoo ci japp rek pour mu réussir. terme élection bi ba fii ñu toll directeur CEREPS mo yoré dernier mot bi parce que dinañ waxtaan ak ñoom avant les élections buñ ko jotee nañ communiquer la population de Bambilor les jeunes de Bambilor les candidats retenus ñu wax leen ni mode am mais pour l'instant nous ñu teg yi wax yëpp ñu waxtaan nañ ci ba heure bi jub ba mu des ñaar yoo xamante ni de recette léegi mooy xaar bu ñëwee kat ni lii la mooy li ma leen waxoon rek soit vote populaire lay doon ba vote boo xamante ni ñi am carte ñooy voté fal seen ab CD CD boobu toog fal seen président yooyu yëpp wax xamagu ci benn parce que dernier mot bi moom day revenir euh, directeur CREPS moo ñuy jox loolu donc bu si jotee bu ñu si amee rek si biir semaine bi lu si jot rek nañ ko wax avant samedi ñëpp yëg ni nii la ñuy demee. ku amul carte amul accès à la salle carte mooy dugal ni si bi ak noo mën toll nag boo amul carte à part les invités ñi nga xamante ne mooy invité euh, ref kii bi euh, le sous préfet ñooñu ñi si des ñëpp kuy jeune boo amul carte doo dugg loolu moom nañ ko nañ nay leer si ñëpp parce que il y aura la sécurité il y a lépp heure bi moom nañ ko communiquer aussi parce que heure bi dañuy dañuy bañ joxe heure directeur sélection ni ñu heure bi heure bi mais essentiel li ñëpp dañ xam ni le 8 la jàpp le 8 la prix bi à assemblée générale au foyer des jeunes de la culture de Bambilor